munoo jaxase Sénégal munoo tas Sénégal Soumboulou c'est une sénégalaise bon sang Bathily bu docteur Bathily dëkk Thiès dixième grande famille des gens notables docteur Bathily doon liggéey ak sama papa ay milliers de doomu Sénégal musal leen ci malaria ci ci ci feebar ak ci feebar yi ànd ak nawet bi biir buy daw nekk inspection médicale des écoles de Thiès nekk un grand notable un homme respecté est-ce que nekkul woon sax maire de Thiès mbaalu njaafen ñëw di ko saaga di saaga doomam di saaga deretam di saaga son honneur parce que la dame a eu l'imprudence un glissement de langage un glissement de langage bi nga xam ne dafay arrivé arrivé na Macky Sall plusieurs fois c'est le président de la République arrivé na pape des papes arrivé na des présidents de la République Jacques Chirac Jacques Chirac pourtant la eh, Jacques Chirac a traité de l'Afrique que dañuy xasaw dañuy xas bés bu ne Macron que dañu bëri doom dañuy am doomu aadama moo mëtul dangay am des moments sans doomu aadama boo muy professeur d'université mon mon ami que je vois en ligne maa lay ziar je te respecte et je t'adore keep going du wax sa tur xam nga yaay kan yow tamit su ma la waxee xam nga glissement de langage moment mu manque euh, période boo xam ne nit ki day am benn moment boo xam ne cerveau am fonctionné wul correctement mu wax une bêtise ça arrive à tout le monde. li mu def ñun ñëpp on est des villageois à commencer par moom Sumbulu ñu tous nous venons d'un villageois ou d'une villageoise quelque part Sumbulu li mu bëggoon a wax du li ngeen dégg. moo tax ma tegal leen bu nit waxee da leen déglu ak seen xel elle n'a pas eu les moyens intellectuels pour génne li mu war a wax Soumboulou ne pas mon ami musuma taseeg sumbulu Soumboulou musuma toog ak Soumboulou mësuma gisante ak mais lii c'est inhumain dafa ëpp ñu bëri defoon nañu damay ñëw pour taper sur Soumboulou non man duma dox ci luy yàq Sénégal duma dox ci liy tilimal doomu Sénégal duma dox ci luy métital doomu Sénégal parce que elle a déjà assez souffert ci erreur bu ndaw bii mu def ñu jël ko def ko une montagne erreur bu ndaw boo xam ni chef d'état def na lu ko ëpp d'accord erreur bu métti la ñi nga xam ne dañoo jóge ci village yi mais bu leen ko jël def ko benn loo xam ne da ngeen di détruire doomu aadama bi wax baaxul wax dafa dangereux wax jëmale ko ci jigéen dafa ñaaw dafa war rafet surtout nag ceux qui jettent la première pierre c'est les dernières de la troupe c'est ceux qui sont arrivés au Sénégal avant-hier et qui n'ont fait que montrer des contre dama bëgg dafa am audio yu mu leen di tegal ngeen wax ma ndax Soumboulou wax na lu day noonu et pourtant loolu ñu ngi koy yëkk ay sénégalais chaque jour fii ci réseaux sociaux yi kenn si yéen waxul je suis fière d'être thiessoise je viens de Thiès coming xama in town boo leen bëggee waxee ko noonu mais lii lan la lii lan la dafa juum elle-même et les villageois ses parents viennent de xawma ban village mais est-ce qu'on va continuer à jeter la pierre sur une personne juste parce que on veut avoir du buzz est-ce qu'on va continuer à déchirer une femme en jouant les hypocrites j'ai vu sur la toile un déchaînement boo xam ne inacceptable ëpp na li wax erreur la waru koo wax ci àddina waru ko dafa juum waru koo wax du noonu la war a adressé woo parce que Sénégal quatre-vingt pour cent yi on est des villageois est-ce que pour quatre-vingt pour cent est-ce qu'on n'est pas à villageois et comment vous pouvez continuer quand même à penser que cette femme-là pendant dix ans mu au devant de la scène est-ce que mës ngeen ko gis ci lu ñaaw est que mës ngeen dégg sumbulu ci lu ñaaw que mës ngeen ko gis mu saaga doomu aadama le le problème c'est un problème de formation c'est un problème de niveau et c'est pas sa faute si on l'a pris sans la former mettre ko au devant de la scène jox ko micro mu war a débattre des sujets qui sont d'extrême sensibilité amul moyen yu ma mën a tojee dossier boobu amul moyen yu ma mën a donner la réplique à kër gi kilifa bu kër gi et c'était ça aujourd'hui c'est ça qui lui a valu de patiner dafa patiner wax loo xam ni dafa ëpp jéggi dayo mais loolu baalu na jeex na lan la ñuy génn di ko saaga ba di ko ne dañu lay takk ci ay fas doo fas yi nga écarté wu ana sauvagerie boobu ci sénégalais non dawal leen yërmande jigéen la dawal leen yërmande je suis pas d'accord xool leen ndax bu doon seen rakk la noonu ngeen di waxeek moom sénégalais boo jàkkaar lool rek jàppal ni que sa rakk la c'est de la méchanceté gratuite Et vous voyez les preuves de ce que je vous ai dit ces derniers jours. pourquoi je suis en croisade lu tax sama photo profil sama photo xeex laa fa teg su may xeex man su ma duggee Facebook pour xeex photo boobu laa fay def wala photo lou bi avec les mêmes mots dama nekk en croisade contre le mal qui s'est incrusté qui s'attaque à toute femme sénégalaise buy briller jigéen sénégalaise bu briller mu descendre la mu saaga la en essayant de faire semblant et je dis que c'est Ousmane Sonko woo leen Ousmane Sonko mu déglu sama live parce que dama koy jox ay information et qu'il prenne ses distances et qu'il assume dès à dès à présent où les responsables de Ousmane Sonko je vous pose je vous mets les vidéos de celle qui a léché Soumboulou Fawad déglu leen des extraits am na yu gën yi moo taxoon ma ne interdit au moins de dix ans mer nag ba guddi bi ma génnee sama si manuel bii yow di nga rëccu lan moo tax ma toogaat ci kanam caméra loolu xaraam ngeen niram si ndax nii ngeen wax ma wax yi ak waxu sumbulu ma ne ba bàyyi lan moo gën a bon ci askan fu mu toog noonu il a presque cent ans kooku fu mu toog noonu foofu gasoom lay xaar déglu leen bu baax baa ngi ci armée bi benn baa ngi ci lañ ko ñaanal rek mu sori

bu dee man dama la ragal man dama la am lu ma leen ragale yow man ma teg sama tànk ci yu bëri. ñu wax ak ñun ñu bàyyi leen bàyyi leen bu dee man woo woo ko léegi déglu leen bu dee man woo ma ko kii nag tundaay ba mu naaw ci suuf ñuy bëgg ko ci nii ci sama sama may wax yow li sëñ jikko doomi xaraam bi nga may jaay bi depuis combien de temps nga fa ne lan la dama la ragal wala li may mën a yow kii sànge la wala leneen kastal sa ne jëlal samay numéro dugal ko seen groupe xorom ma xool la dañ ci dañ ci mën a def dara wala nga dem ne ku la ku la neex ndoxoon la man dinaa reculer doomi xaraam nga foog ne man man jeeg laa bu ñuy reculer loo man kàttan nga wax ci madame Faye Sall jënd si saa si ak ñoom seen. ñi yi Ablaye Wade maa kàttan nga wax ci xuuru kër Wade boole si sa kuu sa xuur sa yow bi sa bopp doomi xaraam convocation boobu sa bàyyi la fekk fa toog bu jël ko bu yóbbu ko àllaaxira man boo waxatee ba nga dugg sama di ma saaga dinaa kàtt fa ndey bi ba nga naaw maa la gën a rakkaat. non non non faussaire a rakkaat du ma jéego kattandaay ñooñu toog ci biir Facebook bi nga laay fan nañ ci tudd seen tur laay fan nañ ba pare yaa ngi wiiri wiiri nag autour de man. ay seego man du ma xaar nga egg ci man dinaa la gën a ñaaw la mi gën laa yow yaay kan yaa ma gën ci judd wala ci ndey lii daal la yaa taxaw ci Facebook ne kat tëdda mel ni sa mokk laa man duma sa caga yooyu ngay lim ñoom François Hélène ñoom Viviane Safi ñoom Reine Diop ak ñoom seen doomi xaraam yooyu ngay tudd seen turi teg leen man duma jeeg yooyu man sama si manuel bi laay jël ma dugg sa kër ndey ma téye ko ci digg ëtt bi caapo boobu nga xamante ne bu muy am douze ans lañ ko may sa yaay laay duñ koy yaay téye ak kooku boobu bi mu amee ñaari at lañ ko dongal yaay téye ma jël sama sii bi ko dagg jël deret bi nag deret bi ah xam nga fu deret bi ñu ko dañ koo soxla Sénégal ma ne la doon na ubbi banque ba doon na saa ubbi. de Pastef sur Facebook. branché ci nag sama la représentante des autres qui soutiennent Ousmane Sonko. tey yaay bi Ousmane Norvège ba muy nàcc. deret bi la fekke eh, Norvège ba mu koy jaawal ak deret rouge yi ngeen naan di ko naan sa caapa ndey sa coppare ci te dugg na fa ndey te góoru bàyyi violeur boobu nekk ci biir tombom kooku nga xamante ni que ne malayka yi sax dañ koo jadd doomi xaraam boobu nga xamante ne daa violé te yaay représenté Ousmane Sonko dans les réseaux sociaux bu ñu koy kat sa kooyam bi mënuloo dugg daa mujjee teg sa caapanday bi ba mu ci ci ci joom bi pour mu mun koo jot far nag mu biiral ko ci saa si moo doon taawam boobu am soixante cinq ans moo mu am soixante-dix-sept ans sa diggu loxo man li may def xam naa ko les Sénégalais ouvrent il faut que man du ma jeeg yooyu man sama si manuel bi laay jël ma dugg sa kër ndey ma téye ko ci digg ëtt bi caako boobu nga xamante ne bi muy am douze ans a ko may sa yaay laay la la la duñ koy may sa baay laay téye ak coto boobu nga xamante ne bi mu amee ñaari at lañ ko dongal laay téye ma jël sama si bi di ko dagg jël bi nag deret bi ah xam nga fu mu nee nii deret nit ñi ko ko soxla Sénégal ma ne la don de sang ubbi banque de don de sang laa ubbi mu naa si nag sama raccord pour yónnee sang bi foofu si yaay tey tey laaj tey laaj toog sa dé jëw ndey bi Ousmane Norbert ba muy nàcc deret bi la fekke eh, Norbert ba mu koy jaawal ak deret rouge arrêté ma pare si tey biir ma ko ci sama baa toog ren même chose Lilian Safi même chose 300 élèves même chose doomi xaraam yooyu yëpp nga xamante ne que ne yaa ngi leen liimal tey nga ne ay grande dame lañ man du ci kenn koo xamante ne toll na ma ci weey du ci judd du ci man doxuma ci man di yellaay uti bi si yellaay uti ñaan nday bi ma jur maa ngi koy sukkal sama baa toog dafa ñëw di ko Assane Diouf loolu du ko may bés boobu ngeen bëgg du ma ko def ba ngeen maa yóbbu nag yóbbu ngeen ma ci sëriñ yi jàll ngeen yóbbu ma ca papay Ablaye Wade jàll léegi ba ngeen maa yóbbu ci Assane Diouf na ci dal bu leen ko nangulee mu dëggal leen ko nañoo gàttal kon donc bàyyiwul benn jigéen jigéen bu ñu tagg mu xëyal la tegaloon naa leen Angélique Manga li mu wax Angélique Manga kaay leen ma tegal leen lii nga xam ni moo ma révolté tey ba ma ne que xanaa yéen xamul leen ni que chaque femme représente l'avenir de ce Sénégal li nga ma def def ko Ndella Madior def ko Viviane Safi def ko Rem Diop jigéenu sénégalaise bu taxaw am am am tur nga ni déedéet tey laa koy tilimal for what et au nom de quoi tu es porteur de quelle justice il faut laisser Soumboulou vivre Soumboulou dafa juum Soumboulou sénégalaise la suñu rakk la suñu xa suñu suñu suñu ñeesu ñenn yi la xaritu ñi la il faut arrêter il faut arrêter de salir les sénégalaises il faut arrêter d'amener la haine entre nous sumbulu defoo fi lu tax ba ñu war ko takk ci fas làbbali fas bi xamaloo sumbalu dara xamalu leen ko dara xamalu leen sumbulu dara donc toog fii di fen jël lu ah, xew nga nit ki njëkk daw daal di daw daw ñëw wuti